لماهن بشير سعد لكل ما رهيب مني ما غدا بالعلم والسعيد لماهن seen télévision bii di Bichri TV mën ngeen ko am ci satellite Amos 17 Eutelsat 16A fréquence 12 333 symbole raid 30 000 polarisation verticale Bichri TV télévision bi sax di liggéeyal Xaadimu Rasuul